ahousubillah min asheytaan irajim bismillahi rahmaanirahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah naw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuy te di leen siyaare di leen ñaanal di sakku ci yéen ñaan dellusiwaat ci sunu jataay bi nu baaxoo amee fii ci sunu 24actu ñu koy amal ay bis jot tey ji ñu fas yéene dellusiwaat ci benn jataay ñu nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci jataay bi di rafetlu bi ak ñi nga xam ne tamit wuute nañu xalaat yal na yàlla defal leen jàmm ñoom ñëpp. te nag ñu dellusiwaat ci waxtaan ci benn jataay boo xamante ni xam ngeen ne fan yi ñu génn moo doon indépendance bi nga xam ne ci la ko Sénégal am. fekk yàlla dogali tamit ci la ñu tag tabbaat sunu njiitu réew muy président Macky Sall mu yëkkatay kàddu yu fasantikoo yoo xamante ni daf ci doon wax ak sénégalais yi nga xam ne ñoom moo leen jiit jiite rawatina ñi nga xam ne nag mooy seen président ñoom ñëpp mu taxawoon ci di wax ak ñoom ginnaaw bi mu defee waatam ba noppi wane ne dina jiitewaat réew mi waxi tamit ay kàddu kàddu yooyu ñoom rek ñi sénégalais yi rek la ko doon waxal wala bu ko waxee ñëpp li ci gënoon a am importance wala ñi mu gënoon di waxal mooy sénégalais yi. ñu gis ci ñetti point yoo xamante ni président wax na ci ñu war cee waxaat ñu ni tamit gën cee yaatal dégg-dégg bi nga xam ne ñun am nañ ko ci ak ñeneen président wax na ci wàllu ginnaaw bi mu xamee ne jël na réew mi tanu falaat ko muy ñetti point mu wax ne euh, dialogue dafay woote dialogue pour mu mbooleem ñi nga xam ne ñoom la doon xëccool ak sénégalais yi nga xam ne àndunoo ak ñoom ngir ñu toog liggéey réew mi tabax ko ci tabax bu baax ñooñu tàllal na leen loxo ba yëkk tudd ci président bi nga xam ne moo fi nekkoon bu njëkk muy Abdou Diouf ak maître Abdoulaye wadd ak ñeneen opposant yi mu waxaati tamit ci wàllu nit ñi war na noo rafetal seeni njikko yoo xamante ni jikko yu rafet lay doon njikko yooyu nag ànd kook yar yar bi tamit nee na ku ci nekk war ngaa fonk sa waajur yi nga xam ne moom mooy sa waajur nga joxe respect foofu ak képp ku tollook sa waajur ak ku la mag ak sa ñi nga xam ne yéen a maase sax war ngaa joxe respect foofu loolu wax na ci. waxaat na yi tamit ci point bi nga xam ne mooy wàllu set set mooy réew mi dëkk bi ñu setel ko gis na ne taq na lool ba yeneen dëkk yi nu xam ne ñoom ñu wër sax. wala ñooy dikk ci senegal am na respect bu nu manqué boo xamante ni bu nu ñàkk a jox Sénégal ngir ñàkk a set gi ñu tàmbalee ci wàllu dialogue dialogue bi de président loolu mooy am réew réew ku ko yore yaakaar naa ne dialogue mooy li lay dimbali mooy dimbali ñi nga nekk mun fexee ba ñëpp toog ci taabal ji mën a waxtaan mën a toog naan kafe naan ndox mu sedd mën a toog waxtaan luy tabax seenam réew loolu nag li koy jiitu ak man gis naa ne woote bi nga ci woote lu baax a baax a baax la ku bëgg a jiite ku nekk noonu lay def waaye ñu deltu ginnaaw tuuti bi ñuy laata dugg ci élection yi ak lu ko jiitu woote woon nañ fi ay dialogue jaloog bi ci gën a doon boo xamante ni bu gënoon a arrangé ñëpp la te waxtu woowu ñëpp bëggoon ko ñëpp doon ko tàllal loxo ndax réew mi nekkoon ci situation boobu waxtu yàlla amoon na bunt bu dialogue mënoon a génn ndax fii ci télévision Sénégal boo xamante ni Sénégal yépp ko bokk ñu jël ko teg ko ci sa loxo muy télévision nationale jamono yoo xamante ni opposant bi ñu ngi dem ci élection Sénégal yépp bëgg a dem wote ji ah ñi nga xam ne ñoo doon xëccoo ñu waxoon ne réew mi ngir élection yi nekk ci élection yu normal yu baax mooy ki nga xam ne moo koy organiser ñu jëlee ko fi teg fi koo xamante ni farul ci benn partie loolu ci télévision bi ab journaliste bu ñuy wax Cheikh Yérim Seck moo wax ne président ngir jàmm am ci réew mi ngir dal am ci ngir ab du juuf nii doxale woon na ko ngir Ablaye Wade doxale woon ko ndax yow doo ko doxale ngir jaloo ngir réew mi nekk ci jàmm waaye la nga tontu ñun ñëpp ñoo ko déggandoo da nga wax ne duma ko def du ma ko def du ko def ah loolu nag bu nu amee président boo xamante ni taxaw na mën a waxee noonu ci ak i peuple am mën a waxee noonu ci wàllu ñi nga xam ne mooy seen responsable loolu dafa mel ni day tiitloo nit ñi ci lu bare bari mooy ëllëg boo wootee jaloog mën naa am jaloog bi na nga ko doon bëggee mën naa am du gaaw a amee noonu ndax li ko waral mooy ginnaaw xam na ne bu nu ñaanee en tant que njiit ñaan ko ne ko mayee mu ne du mayee ci Sénégal yi nga xam ne ñoo la faloon ngir seen jàmmi réew mën a nekkaat ci seenam réew ñu jox lay tamit ngir nga téel leen seen jàmmi réew ñu gis ne loola doon na indi jàmm waaye xañ na jamono yooyu mel na ni arrangé wu la wala nekkul lu la neex ba nga def ko da nga wax ne déedéet déedéet loolu sénégalais yu bari duñ ko fàtte kenn du ko fàtte te boobu buntu dialogue la woon yaakaar naa ku defoon loolu tey boo wootee jaloog tàllal ñëpp loxo danañ wuy si xam ne euh, réew mi am na loo ci bëgg te it woote woon nga dialogue bu yàgg-yàgg waaye loolu mën naa doon bunt buy fatt buntu dialogue ba ñu baree baree bari ci sénégalais yi mën naa am du wuy si ñuy wuy si tamit xañ na ginnaaw xam na ne buñ dikkee condition yéen ñuy tëral ngir dialogue bi mën a dox buñ ko tëralee doo leen ci fekk si loola mën naa dem buntu dialogue te loolu wax nga ko ginnaaw bi nga gañee réew mi ne nañ dialogue jàpp naa ne lu jiitu woon la. ngir bañ cee taxaw ndax dañuy wax ne kuy wax lu ñëpp xam daanaka jëru nga ciy guddal lool lool Sénégalais yëpp xam foofu bunt la woon boo xamante ni yaakaar naa bu fekkoon bunt boo ubbi woon la boo wootee tey ñëppay taal dawandoo ñëw. ngir xam ne li ngay woote intérêt Sénégal képp la waaye du intérêt yow sa askan wala sa ñi nga jegeel benn bi ci desaat nga wax ne nga bëgg réew mi ñu setal dëkk bi setal dëkk bi fii man yaakaar naa bu fekkee fàttewunu waxoon nan ne wote woon nan ko sax ne bu fekkee fàttewuma wote woon nan li nga xam ne mooy mbuusi perméable yi nga xam ne moo gën a doon mbalit ci réew yi te doon mbalit moo xamante ni réew yépp a ko jooytu xamuñu noonu koy def ndax li tax mooy loo xamante ni du seey mënu koo def dara te mën naa lor lu bari ci saw askan ah loolu yaakaar naa woote woon nañ ko fii bu yàggut nekk benn mbuus buñ ko gisa teel waaye dafa mel ni loolu dafa mel ni dafa gën a yokk mbuusi perméable yi boo xoolee ngay yëg ne mbuusi perméable yi daf fi gën a bari sax te loolu baaxul ci ku jiite baaxul yi tamit ci fu ñuy jëlee dogal ay dogal yi nga xam ne moo yore réew mi di ko organiser buñ ko jëlee dañ ko war a topp fonk ko di ko saytu ndax sénégalais loolu dafa bokk ci ay mbiram mooy saa bu yëgee ne ki ko jiite bu waxee tey wala bu nu tëralee benn loi loi boobu mën na noo demaat ba bàyyi ko loola day tax rek béréb bi àttekaay yi ak béréb waxukaay yi ak sunu kilifa fi ñuy nose sunuy mbiri réew sénégalais yi duñ ko joxati àq dëgg dëgg te loolu am na fi mbuusi perméable yi ni mu fi bare léegi dafa mel ni sax ban ko autorisé bariwul noonu léegi dafa mel ni daf na fi xas te loola kenn du ne ñi ko aaye woon umpule nañ loolu wala gisuñu ko dafa mel ni dafa gën a bari ñu koy dugal ci réew mi réew yi développé yépp nag bàyyi nañ loolu yi développé yépp bàyyi nañ dafa am benn waay boo xamante ni ci politiciens yi seen mbokk la dafa wax ne moom réew mu mu dem lii tax mu xam ne réew mu développé la réew mu avancé ci ñett la koy xamee mooy bu gisee ñett lay xamee ne réew mi développé na wala développé ci ñaar looy xamee nee na bu dikkee gis xale yi ndaw yi nekk ci mbedd yi. loola day xamle ne réew mi développé wut ndax parce que ay xale yi mujjee réew mi tan war leen a formé bu fekkee mbedd moo jaar fekk fa ay xale ci fuuru suy ak di leen fekk ci béréb yi nga xam ne dañ koy aaye ñuy xale yu ndaw yu tolloon ci ñu jàngal leen tëj leen ci ay ruq xale yooyu di wër waxtu wu nekk waxtu deux heures de matin suba teel sept heures du matin waxtu woo jóg na nga tase ay xale yoo xamante ni heure yooyu mag ñi am responsable sax génnoon waxantuma la xale bu ndaw ñu génn loolu day wane réew mi nekkul ci ak euh, développement. nee na beneen bi ci desaat mooy nee na bu ma génnee demee ci réew gis xale nit ñu mata ji ñi nga xam ne seen xel dafa desadi ma gis leen ci mbedd yi ñu bari fi damay yëg ne réew mi développé wut te loolu ku nekk xam na ne ñooñu waroon nañ leen a wutal fépp foo xamante ni ndax bokk nañ ci li nga xam ne li ngay aaye ak désordement bi am ci réew mi ñoo ñu bokk nañ ndax ñoo xamante ni dañuy for ay mbalit di ko takk fu nekk ñu dem fa am na ci ñoo xam yàlla da leen di xiir sax ñuy for fa nu nekk ñu def ko ay sën di for lu nu for bagage bu nu for indi ko ndax loolu dafa mel ni day nekk ci seen xel ñooñu bu fekkee ne wutalul leen béréb bu yaatoo yaato yaatu boo xam ne dañ leen faa jël di leen jéem a faj ak di leen jéem a euh, delloosiwaat seen xel ndax am na ci ñoo xam ne toog waxtaan ak ñoom rek mooy dellu siwaat seen xel xañ na am na ñu leen isolé yoo xamante ni loolu moo yóbbu seen xel. am na ci ñoo xamante ni faj dëgg la am na ci ñoo xamante ni nag dem nañ ba leer na nag waxtu yàlla mënatunoo jaxasoo askan wi ñu wër leen foo xamante ni dañ leen fay fekk di leen faj ndax en tant que doomu aadama lan respect bu ñu war a am ci ñoom ak droit de l'homme bii di wax nga xam ne guddi ak bëccëg ñi nga wax ñooñu waroon na leen a bàyyi xel. nee na beneen bi ko ñetteel mooy réew mu ma dem fekk ay fiil di jaar ci kaw fiili fiili courant yi di jaar ci kaw. ak yeneen fiil yi nee na damay xam ne développé wu ndax loolu li ko mën a indi jéyee xolo oto yi nga xam ne toujours ak fil yi nin koy daggee nga xam ne oto yi accident yu ci am yu wóora yoo xamante ni loolu yaakaar naa dama jàpp ne suñu réew mi ku xool yooyu di nga xam ne bari na fi lool beneen bi ko ñetteel mbokk ci président wax na dafa bëgg nit ñi ñu respectante am yar ak di àtte ci maandu loolu bokk na ci président li nga xam ne sam réew la moo xam yow la responsabilité bi ñi la gën a jege rawatina nga yore seen responsable ñu lay xëyal di la gontal di la liggéeyal ñooñu nu mel rek ni la askan wi di mel ñooñu ñoom daanaka ñooy sunu seetu nu nu mel rek ni la ñu mel. bu demee ci débat yi gis ci ñoo xamante ni xañ na dinañ saaga sax ci opposant bi ay xale yu ndaw di saaga ay nit wala di leen ñàkk teggin wala di leen wax wax joo xamante ni ju kii la. loolu yaakaar naa ne ñoom waroon nañoo gën a defar seen toogaay war a wane ne ñoom ay responsable lañ bokk nit ñi ñoom buñ leen waxee wax joo xam ju juunu la sax ñoom donte mën nañ ko faj ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ndax ñoo jege waaye ñu wane ab yar wane respect boo xamante ni wane loo xamante ni nit ñi dana tax ñu naw leen ba fun le mais buñ demee ba ñun ñuy gis suñuy as responsable ñu dem ñu fal leen ci suñu député ay député yoo xam ne ci fa ñuy nasa réew mi ak di ko nocc ñuy saagante àgg bay xeex àgg bay deret di fa tuuru lépp di fa jóg foofu yaakaar naa ne ñoom war nañ leen a wax bu baax a baax a baax a baax bu ñu demee dellu see ci débat yi nga xam ne ci la ñuy toog nga gis ñuy waxee waxin woo xamante nii di saaga da fen da ngay def nangam baat yooyu nga xam ne ñi am woor ma ñëpp ak ñi am lu ñuy jomb lu baat yooyu duñ ko tudd. te loolu mën nañ cee jël exemple ci yow wax dëgg yàlla bu fekkee lépp luñ lay waxal te wax ko rek ngir yàlla tax ñëpp xam na ne sab yar moom matewu ke mate na ko lool kenn du wax sa yar bu manqué mosunoo dégg nga wax waxin joo xamante ni ju ju juy wane na rek da ngaa manqué nit respect loolu moom ñëpp la ko mën a taxaw waxal la ko ñi lay sopp ak ñi la soppu ñëpp loolu moom bokk na sax li tax nga toog ci bopp réew mi yaakaar naa ne loolu exemple nga ci yow yow exemple nga ci wane yar. ngir nit ñi xam ne nit ku yaru nga loolu exemple nga ci ndax li la indi fii du jàng mu sori moo la indi wala ëpp xel nit ñi wala nangam waaye bokk na ci sab yar loolu moom sénégalais yépp ci teg seen bët te ñoo la ko mën a waxal kon loolu gàcc nga laama soo ko waxee dañuy xam ne yaa ngi ci yoon wi loolu moom wax dëgg si yàlla moom dëgg-dëgg yaa ngi ci yoon wa te def nga ci euh, beneen bi ci desaat muy wàllu siis siis wàllu yemale nit ñi béréb yooyu tamit war na nañoo xam ne képp koo xamante ni laa tooñ ñu jox la sa àq ba nga jot ci képp koo xam ne da tooñ ka nga tooñ it mu fexe ba jot àqam loolu bu nu ko defee ci béréb yooyu bu fekkee ne yow buñ la tooñee boo demee ci béréb yooyu doo jot sa àq gis nañ fi barki dem boo njaay ay nit ñoo xamante ni dañ leen bind leen recours waaye dañ ne duñ ko bind lan ca tegaat ci baat dañoo wax ne duñ buñ demee duñ jot sunu àq. nit nag bu fekkee ne képp koo xam ne buñ la tooñee boo demee ci béréb ba ñuy àttee doo fa jot sa àq loolu day mel ni day metti lool te béréb boobu moom nekkalu fa kenn nekkalu sam boo déggee sax wolof yi naan wax naa buur du mbokk danoo wax ne buur du mbokk li tax ñu wax ko mooy buur soo boo sa boo tooñee boo dee mbokkam ak boo dul mbokkam boo tooñee la jaarale ci yoon dan lay teg ci yoon looloo taxoon ñu daan wax naa buur du mbokk am na ñu ko firee noonu kon réew mi ñun ñëpp sunum réew la ñun ñëpp nañu delluwaat surtout discipline bi yaru bi yaru bi moom baax na yaru ko fexe tamit ba euh, réew mi ginnaaw wax nañ ne dafa am loo xamante ni daf feeñ muy pétrole muy làngam yooyu ñu fexe ba liggéey am liggéey politique bi ñu wàññi ko bu baax a baax a baax ndax li tax ñu wàññi ko mooy ñëpp teg nañ ko défense jàpp ne politique mooy métier te politique ñëpp borom xam-xam yëpp nee nañ du métier maanaam du métier. du métier kon bu fekkee ñëpp gis nañ ne boo dee jàng wala ngay def leneen politique moo ko ëpp avantage ci yow da bàyyi njàng ma rek ñëw te ginnaaw nin koy defee ñun suñ politique mooy képp ku mën a wax lu ñaaw mën a xas sa moroomu nawle doonte di nga xam ci moom ay qualité yu baax wala nangam ak yooyu beneen bi ci desaati tamit mooy ñun ñëpp ñu xam ne yar mooy li nu mën a defaral sunum réew kenn du jóge fee dinu ko defaral te réew yi ñuy demaat moo ne respect bu mag a mag lañ fay am respect bu rëy rëy rëy la ñuy am ci kii bi liggéey ci kaw ba ci ñu suuf ku nekk ñu jox la sa àq ndax tonnkat mbalit bi mënul ñàkk ci réew mi te ñooñu gis nañ ne toujours ñu taxaw ci télé bi wala ci mbedd yi di wax ne seen àq ah, te ñooñu bu ak ñi nga xam ne ñooy dem sax ci aéroport port yi di yenul nit ñi seen i bagage ñooñu buñ fa amut woon tey boo wàccee yow ci béréb yooyu nooy def foo yanoo sa bagage ñooñu ñëpp ku ci nekk ñu xam ne li ngay def luy développer réew mi la amul ñu nekk ci kaw wala ñu nekk ci suuf ñu nekk ci suuf ak ñu nekk ci kaw ku ci nekk sa ñaq nga war a dunde te sa ñaq rek moo la bàyyi fa nga toll ku ci nekk nag ki nekk ca kaw kaw nag li mu war a wax ak li mu war a def mooy situation yi nu mu ci man ci sensé ko loolu mooy responsabilité am kon daal nan gën a yokkaat kàddu yi kàddu yi nga xam ne ñoom dañ koy jële beneen bi ci des pour yar am télévision yi nañ ko organiser waat ay baat yu tegginu ay film yoo xamante ni kenn xamul lu mu doon programme yu bon bon yoo xam ne waroon nañ ko nettoyer boo duggee ci site internet yi noonu loolu ak yooyu yooyu yëpp yu ñu war a nettoyer la surtout bu fekkee ne surtout télévision yi nan nettoyer programme yi indi programme yu baax yuy wax ci diine di yee nit ñi programme boo xam dina xamal nit ki lan la doon lan moo doonoon cosaanam lan lay jomblu ak yan la war a def ak yan la warta def ak yan lan ko war a fekk ak yun ko warta fekk yooyu ay émission la yoo xamante ni yu jege askan wi la yoo xamante ni xamoon nan ko mais bàyyi animateur wala képp koo xamante ni mën ngaa wax ay baat yu yu ñaaw baat yoo xam doo xam foo koy formé baat yoo xamante ni doon baat yu respect ñu fexe ba xewal ko ci réew mi loolu yaakaar naa ne responsabilité ñi jiite la ñi jiite la kon bu nu bëggee yar ginnaaw yàqu-yàqu bi fu nekk lay bale dañ fexe fu nekk ñu teg fa kenn koo xamante ni dana mën a saytu loolu programme tele yi ñu saytu ko bu baax mun ñu gisee dafay dem ci xeetu ay jibar yoo xamante ni dañuy lor askan wi ay ñu mën a dañuy faj te mënunoo faj ak ñoo xamante ni baat yoo xam ne kenn xamul loolu ab poogul ak ay produits yi nga xam ne ñu ngi koy indi di ko dugal sunum réew mu nuy lor ci wàllu ay jikko ak nangam. rawatina wàllu li nga xam ne mooy dorog yeeg sàngara yeeg yooyu nga xam ne loo am léegi am ko ñaar fukki dërëm mbokk amee am ko boo amee nangam am ko jigéen ñi nga xam ne doonoo nekk seen liberté di dox ci mbedd yi di jaay seen bopp ak yooyu yooyu yëpp ay waxiin la yoo xamante ni responsabilité état la waaye responsabilité ñëpp la ñu responsable ñëpp la boo xoolee woykat yi clip yi nga xam ne ñu ngi koy génne tamit kenn xamut clip yu mu doon ay nit ñuy fecc di génne seeni awra ak nangam boo waxee li ci gën a yéeme da ngay dégg ñu ne ñun dañuy teral bëgg a teral suñu waajur ak bëgg a teral suñu yaay jàpp naa ne fecc ak yooyu du métier du métier du métier imaam Malik bi ñu ko laajee ne kon fecc dafa araam wala araamut mu ne xaw ma araam na xaw ma araamut waaye ñi yées ca sunu dëkk ñoo koy def te noonu rek la demee ñi yées rek ñoo koy def kon daal li ay kàddu la yoo xamante ni jataay la beneen bi ci desaat tamit te président waxoon ko boobu moom dañ ciy junj rek wax ko waxoon na ñi ko woteelul lan moo tax woteelun ko kon loolu yaakaar naa ne ab laaj la boo xam ñëpp ko ko war a tontu surtout ñi nga xam ne àndunu woon ak moom loolu tontu la rawatina yi ñi nga xam ne Tuubaa gii de am nañ ci xalaat bu rëy boo xamante ni ñàkk a wooteel gi am na luñ ci xam tuuti loo xamante ni xam nañ ko ci xañ na jombut beneen jataay danañ wax ne sunu xalaat li tax waa Touba am ñu ko ci boycotté ci sunu xalaatu bopp lan ci xam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Saliou moo nekkoon ci caméraman bi montage bi soxna Khady Niang moo ci nekkoon ki réalisé émission bi soxna Awa asalaamaaleykum wa rahmatullah مرتجا